ngem lu weex bébé rek rek moo ngem moo ngem lu xonq yaxi mbaamu lor wàcc na ndeysaan meeram tey moom la ñu tuddee drapeau bi muy la maire Ndiagne Diop la maire de Bambilor dégg naa kenn du moom buur nee na ma léegi Fatim la maire sama xarit la yaxi Bambilor a ngi cokkaas bébé rek rek saawal bébé rek rek bu njaga saar waaw oh, jël na ko yaxi bambilor yaxi bambilor jël na ko yaxi bambilor jël na ko da lay daan da lay daan da la gën a bëgg combat bi yaxi yaxi bambilor jël na ko da lay daan da la gën a bëgg combat bi yaxi bambilor